asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi mbokki mbokki internautes yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah. ci euh, Equivox TV Equivox Arena du mën a ñàkk tey nag ñu ngi si vendredi 4 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay yëglikaay yi nag tey bu ñu xëyee ñëw fi ñu njëkkee mooy yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk gis ngeen ko lim ci xëy fësal ah ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo ngeen di gis noonu ci photo wu yanj woowu moom Modou Lo ci biir géew bi wala ci biir làmb ji kañ def ca côté Modou nag muy wax mooy kenn ke ngeen xam muy Abdou baaxum di manageru Ama Balde Abdou baaxum nag moom moo xëy tey ñëw la mu xamle nag dina na daal lii am ba des daal Abdou Bakhoum nee na Modou Lo moom na xam ne mënta baare Ama Baldé route bi maanaam yoon wi Ama Baldé war a aw Abdou Bakhoum ne ko yow Modou loo bul ko xalaat mënoo ko caa tere aw tey suba waxi noppi ne na loolu moom na nga ko yebu yeb ko ci sam xel yaak ña nga àndal ak ñu lay gunge ne ko daal li am ba des moom jàppal ne yow Modou Lo roi des arènes Abdou Bakhoum ne na du yow yaay baare Ama Baldé li nga xam ne moom mooy route bi mu war a aw ñu ne ko Abdou Lo foo ko teg mu ne fi mu ko teg fenn kese la parce que jàpp na ne Ama Baldé cereek ndawal kese lay dunde te xale la moo tax jàpp na ne mag la manta baare ki nga xam ne mooy ama yoon wa mu war a aw loolu nag mooy li olof di wax xam naa ku courage jëmale sa kanam day dëllu lool loolu mooy waxe ki nga xam ne moom moo di ab du Bakhoum ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu lam ba tey ci xëtam mu njëkk gisaat ngeen tafaatin moo xam ne nii tey ak Boy Niang yëglikaay bi ñëw na tey ci ñoom ñaar ak la nga xam ne nii moom moo di seen carrière lañ ca jot a def ban duggee ci lamb ak li nga xam ne nii am nañ ko ci ay ndam bu fekkente ne nii ki nga xam ne moom moo di tafaatin la moom moo njëkkan dugg booy ñang ci lamb ndax yëglikaay bi nee na am na lu toll ci 18 combats 13 victoires ak 5 défaites boo xoolee moom combat bu njëkk mu ngi ko bëreeg Malaw Seras ma ca Pikine 9 janvier 2005 loolu la tafaatin njëkk a ci combat maanaam mooy at mi mu njëkk a dugg ci lamb muy le 9 janvier atum 2005 moom tafaatin yemu ca combat bi mu mujj bëri mu ngi ko bëreeg ka nga xam ne moom moo di Yékini Junior boobu tam mu ngi ko bëri woon le premier janvier 2018 boo xoolee kon yëg li kaay bi ne daal lii la jot a def moom ci làmb 18 combats 13 victoires 5 défaites booy Niang mi nga xam ne nag moom la ko seqal moom i tamit boo xoolee tafaatina ko jiitu ci làmb ndax moom yëglikaay bi ne na mu ngi ci 16 combats moom tamit 13 victoire ak la nga xam ne moom moo di 3 defet moom Boy Niang yëglikaay bi xam nañu ne daal moom Boy Niang soo bëggee dégg dëgg kon le 26 octobre 2008 la ñëw ci làmb moom Boy Niang daal di bëri njëkk bëri ka nga xam ne moom la ñuy wax du Diouf mel ni kon daal sunu làmb ba tey ñëw na wax nu lu mel ni ki noonu ba tey yëglikaay boobu nga xam ne moom moo di sunu làmb xamal nañu tamit ci ki nga xam ne nii moom mooy moo tardeel la nga xam ne nii moom moo di arrêt bi nga xam ne moom a nag taxaw nag ñu xam la mel ni ki loolu daal ba tey fi mu nekki nii amagul ñu xaar moom Bira Sène nag CRC ba nga xam ne moom la jiite woon ca Kaolack daal maanaam ka ka war a jël place am na daa mel ni inspecteur u inspecteur régional ba nga xam ne moo war a wàllum sport foofa daal mu nga continuer daal daal di seet ay nit yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom la war di moom wala bokk kuñ ci war a dénk la nga xam ne mooy CRC ba maanaam daal consultation yi mu ngay wéri fa nga xam ne nii moom moo di ca Kaolack maanaam Saloum loolu yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey wax nu ko ba tey ka nga xam ne nii tamit moom moo di jamaykee ca tuus ya yëglikaay bi ñëw na ci moom ak la mu jàpp ne daal mu ngay marqué la nga xam ne daal moom mooy ay point moom ke donte la nga xam ne nii moom moo di corona ba ñëw na arrêté la nga xam ne ni moom moo di lamb ji ba tey yëglikaay ba ca touché tamit ñëwaat na ba tey ci Babacar Diom ma nga xam ne moom lañ xamoon mu nekkoon ca Lutte TV ak Leewtoo mel ni ki nag yëglikaay ba xam ne ne daal doo ba mu bàyyee fa nga xam ne ne nag moom moo di Leewtoo léegi mu nga fa nga xam ne moo di Equivox yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb ñëw tey andil ñu ko ci tuusi ba tey bu ñu continuer dem fa nga xam ne nii moom moo di ca record record moom la mu ñu xëy andil ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg moo xam ne daal galaa yi nga xam ne ni jax tëgg na ko ak millions yu bari ya nga xam ne def na ko ci daa mel ni ki nga xam ne nag moom moo di yi rëg-rëg moom la ci ëpp dàmm mel ni moo ko encaissé ndax yëglikaay bi record ak ñu xamal ne daal 15 millions 620 mille francs rëg-rëg jot na koo lekk ca la nga xam ne jak jot na koo tëgg ci ay yu baree bari ci làmb rëg-rëg nag xam ne na daal loola moom plaisir la ci moom galaay jak mu gañe ko ndax jàpp na ne jak daal nekk na jëmm joo xam ne nii ah gañe ay galaam am na lu mu lay may am na lu mu lay yokkal ndax jax la muy tëgg day am doole te day yëngu ba ñëpp yëg ko rëg-rëg noonu la gisee mbir ma ba ko ko abu nduur laajee keneen koo xam ne ni tamit xaritam la ñu bokk dëkk ci diggante caaro yeeg jàmm gën muy la tarkindaa bi ñu xam muy ka nga xam ne moom mooy la phénomène de lansar muy sitta sitta nag moom la mu xëy di xam ne daal daa mel ni mu nga yëglu de diggante mag Papa Sow daal la bëgg ñu xool nu ñu koy def ba bëre ko wala ba mu mën a xoolee moom leneen parce que fi mu nekk nii daal daa mel ni xaar ba daal tar na ci moo tax daal noonu Siteu daal bëre képp la bëgg fi nekk nii ak Papa Sow ngir mën a xoole leneen ñu ngi leen di bëggee di leen balu ak tey si bisu ajjuma ji nga xam ne moom lañ ne di bis bu sell di ñaan yàlla yàlla def jàmm Sénégal encore une fois tamit di leen waxaat corona bi gis nañ fan yi ni mu yéegaate tey defe naa ñu ngi ci ay quarante quelques cas communautaire te defe naa yooyu ah vraiment war nañ gën a xoolaat taxawaay yi bañ a bàyyeeku maanaam digle yi gën ko Euh, loolu mooy li nga xam ne moo ko fi mën a jëlee parce que yàlla dimbali woon nañu ba mu demoon di dem di dem di dem ba wàcc ba la nga xam ne nii sax moo doon ñi nekkoon ci hôpitaux yi ñu daan ñu doon leen faj ak kër yi demoon nañ ba mënatul woon sax sans mais boo xoolee tey niveau bu mu ngay élevé di jóg loolu nag li ko waral xëy na ah est-ce que du suñu bàyyeeku la wala yu mel ni ki moo tax nag comme ñu nga wax ay waxi deuxième vague yàlla bu mu ñëw nañu fexe daal gën a jàppoo a fagaru comme nañ ko daan defee ngir corona bi mën fi jógee loolu moom bokk na ci loo xam ne tey dañ waaye tamit leneen loo xam ne dañ koy ubbee parce que loolu faaw ñu boole ko ci mu ngi nii ci xët wu njëkku yëglikaay bi di record muy Pape Bouba Diop l'international Pape Bouba Diop mi nga xam ne ni marqué na empreinte am waxuma sax football sénégalais mais ci football mondial ndax coupe du monde nga njëkk a dugal bii ci match d'ouverture Sénégal France Sénégal ba nga dugalal bii ba mooy première coupe du monde am mu mu participé ci France ba nga ko dugal muy 1-0 ya moom mooy ka jëloon coupe du monde 98 organisé ko devant le Brésil France booba ñëw war a koo xam ne day doog a ñëw yow nga marqué bit booba te France ba muy ñëw la moo ay meilleur buteur kenn xamul nu mu toll meilleur buteuru Italie David Trezeguet meilleur buteuru France Djibril Cissé meilleur buteuru Angleterre Thierry Henry ak ñoom Sylvain Wiltord ak yeneen joueurs yi ca nekkoon ñoom Zinedine Zidane ah ay Emmanuel Petit Franck Leboeuf ñoom ñëpp a nga fa woon ay Youri Djorkaeff xara bés boobu Fabien Barthez Pape Bouba Diop def fa fa def àndoon kook ñoom El Hadj Ousseynou Diouf ak ñoom Khalilou Fadiga ak xaritam ba ñoom Henri Camara mel ni kon kooku nag moo génn àddina ñu fas koy ne nag tey maanaam ñaanal ko jébal ko boromam yaakaar naa ne suba ca Rufisque nga xam ne fa la dëkk ca armée la ñuy wax dàngu ñu ñaan yàlla rek yàlla yërëm ko te xare ko aljana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo yàlla na nañ doomam macha allah ah muy xale wax Ron Diop ah la sa bàyyi taxawoon yàlla na nga taxawee lu ko raw te sut ko aw fan yaag say rak loolu mooy àddina waaw loolu tey dañ koy ubbee tamit Abdou Bakhoum nag comme na ngeen ko xamee comme d'habitude ah hélas moom daal la mu xamle ne naa muuru moom na ko leer ci ay noppam moom mu na la yow mënoo arrêté fi Ama war a jaar route boobu mënoo ko baare ah loolu nag yóbbante galgal la dama naan ubbul làmb waaye xam naa daal diggante Ama ak Modou moom gis naa raay ba wax na ko mais combat pour combat dàquri na jafe parce que li tax mooy la ma waxoon kere rek moo ci am hélas combat wutante la ñaar nag bu ñuy wutante ba daje ci àngal defe naa ne bu àddul soufflé dana tarte dana metti moo tax combat la boo xam ne ah Abdou Ba xam ne Modou mënu koo baare waaw loolu bu àddul soufflé lañ ci xam dara waaye xam naa daal Ama dogu na lool gëm na li muy def te itam wóolu na boppam yaa ngi dégg loolu moo tax ba nga xam ne moom itam ah ah baare ko xam naa dina jafe waaye ki mu ko séqal muy Modou ndax kooku euh, euh, euh, ngaaka la ci làmb wala ndax kooku amul sañ-sañu làmb dama naan déedéet Modou Lo le roi des arènes xel ma macha allah ba ak caay-caayu làmb gi ci biir géew ah Abdou Bakhoum am nga komba de ama am na combat waaye am nga combat bàyyi leen ci xel Modou ngeen di bëril koo xam ne wax dëgg yàlla caractère u làmb ak respecté làmb ñëpp xamel nañ ko ko waaye Ama Baldé itam na Modou Lo bàyyi xel ne xale la bu bëgg dara lay bëri boo xam ne ne roi des arènes da koy yàqu ci dara xale nag bu dee day dunde cere ak ndawal hélas cere ak ndawal boo ko ñemee xam ne dara melu ne day maye doole de boo ko booleeg def sport ab bu baax xam loolu la mbërëm di lekk moo ko wax Tapha Tine Boy Niang 16 combats ci Boy Niang 18 combats ci Tapha doo xoolee mel ni kon Tafatine ñëw na ci làmb 2005 Boy Niang ñëw 2008 mu mel ni kon 3 ans la ko Tafatine jiitoo mu mel ni seeni victoire nag ñoo toll 13 victoire ci Boy Niang 13 victoire ci Tafatine defetee Tafatine am na 5 Boy Niang am 3 ñoom ñaar itam la mu waxoon rek combat jànq la combat bu Sénégal yi doon réclamé la Pape Thialis Faye yàlla dimbali mu taxawal ko kon boobu combat itam yaakaar na cin lu lay doon do am roq bu sedd ak waa Pikine ba tey ndax boo xoolee ndamam lu njëkk biir Pikine la ko amee moom Tafatine maa law seeraas mu ngi nii yëglekaay bi xëy nañu wax ñu ko waaw non astaghfirullah maa ngi jéggulu waaw noonu la demee sax saa kajoor la njëkk a bëreel waaw wala du moins maalaw seras excuse moi baal leen ma maalaw seras la njëkk a bëreel le 9 janvier 2005 moom tafaatin kon daa mel ni min na pikin waaye nag dafa itam bi ko gën a metti ci àddinaam fa la ko jële tey nag fa la duggaat war a bëre xale boo xam ne ni mooy boy ñaa boo xam ne ah xale la boo xam ne moom itam am na lu mu bëgg de waaw kon daal baa ngi noonu ka nga xam ne moom mooy Bira Sène nag bañ ko joxee ba tey mu jiitee làmb ji ah daa mel ni pour ñu officialiser li nga xam ne moom mooy loola daal des na arrêt ba daal tax moom mu retardé xaw lu xew kon monsieur le ministre lan moo waral arrêt bi retombéegul ba maanaam yegg seegul nañ mu a mën a doxal a nekk ci liberté fa mu jiite woon muy CRC ba ca Kaolack yëglikaay li mooy fi mu nekk nii moom Bira Sène ah CRC booba daal ah daal ñu ngay def ay consultation ba tey di xool kan moo ko war a remplacer loolu yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko record bu ñu fa demee rëg-rëg lañ fay fekk moo xam ne ni daal jàkk sa yu bëree mu tëgg ci lam daa mel ni li ci ëpp rëg-rëg moo ci teg loxo parce que boo xoolee yëglikaay bi natt na ko ci 15 millions 620 mille francs yoo xam ne gagné na ko ci tournoi jàkk si ah muy loo xam ne nag dara dañ ko ciy félicité parce que lu mu gëm la rëg-rëg dafa nekk mbër boo xam ne wax dëgg yàlla ci làmb li mu laaj mu ngi ci moom ci mbër gi ci am sañ-sañ bi ci biir làmb ci bëgg li muy def et puis ci fonk ko te loolu boo ko boolee di xale nangu entraîné defe naa dara jomb la kon defe naa lii du lu ko jomb ñu ko ciy félicité di wax ne Jax tamit comme ni ñu ko waxee démb rek macha allah ndax lii yëpp ku koy def ci làmb ak ñeneen mbëree lañ gagné boo ko boolee muy xaalis bu bëri kon Jax jar na tamit remercier Reug Reug tam ne na gagné lool plaisir na ci moom effectivement parce que yooyu dafay am solo tournoi yooyu day nekk ay tournoi yu mag ma wala boog doomu ndayam ba di Siteu xëy na tey daal yëglikaay bi ne ñu fi nekk nii la mu bëgg mooy jeexal ak Papa pour mën a xool leneen maanaam ñu bëree waaw loolu nag fi nekk nii moom si tax xam naa ne loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëree ak Papa Sow moom est-ce que Pape Abdou Fall ma leen joxoon avance moo gën a bëgg sax combat bi am waaye nag ku amul yaay nàmp maam fi nekk nii amuñu solution parce que li tax mooy corona moo fi ñëw daaju bu daajoo nag mënee su la comme waaye nag war nañu xoolaat affaire yi wax naa léegi ñu fagaru ci corona bi mais dama gis fan yi ay yaa ngi am yenn affaire tam yenn kii yaa ngi am noonu ñuy def ba organiser ba soirée di am tamit est-ce que mënuñoo jéem a ut ay solution pour fexe làmb ji tamit ñu xool nu ñu koy defee ba mu am pour que mbër yi mën a bëri libéré wu ne ci leneen li TV tey ah Babacar mi di wax a yéen la Lamine dalaloon bëri ki dem ñu seq waxtaan mu gis fa ne andi na ay leeral ci li ko jëlee fa nga xam ne mooy Leewtoo Leewtoo nag la ma fa jëlee encore une fois dama koy waxaat rek man ma ko waxee la ñu seq baax la waaye nag man maa préféré démissionner ba ma démissionné tamit yàlla dogal na ah ay nit amoon nañ ci man bëgg-bëggu ma liggéey ak ñoom du Equivox kese ñeneen amoon na ci waaye nag yàlla dafa dogal que ni Equivox su la Babacar Choisir et puis pour ñëw fi liggéey ana waaw noonu la demee di ñaan jàmm di nuy internautes yi di nuyu sama tailleur bi Rimka Couture gis nga yu rafet yi may sol moo koy ñaw borom Touba Sandaga ah borom aaw ak ñaareel maa ngi koy bëggee bu baax a baax taal bi si Abdou Karim Mbacke maa ngi koy bëgg di nuyu waa Touba Sandaga ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre fu ñu mën a nekk ki nga xam ne moom mooy Malick Ngom Malick so ah Malick Soft maa ngi koy bëgge bu baax a baax dem li ma soloon ci lakko sëg jiin moo ma ko jox maa ngi koy nuyu di nuyu tamit waa ak yaay sama dëkk ñoom ñëpp maa leen di nuyu Cheikh Seck suma rak ah maa ngi koy bëgge bu baax fépp fu doomu ak yaay nekk rek maa ngi lay bëgge di nuyu suma famille papa sama rakk yi ñoom Saliou jom àll ñoom Ngoma Diom Fass Mbaam ñu maa leen di bëgge parce que ñoom ñëpp ami maa ngi bëgge ñëpp sama mbokk yaay sama tamit maa ngi leen di bëgge sama kër nijaay mbomboy du ma leen fàtte sama nijaay njàmme aarama ak suma yaay yi ñoom mère Ndogoy ak mère ami Ngom Refan mère Awa ñoom ñëpp maa leen di bëgge suma grand frère bi ma dëkkal te dara ñaawul muy Pape ñaan Pape Mbomboy borom oto yi maa ngi koy ñaanal jàmm yàlla lafal ko cat bàyyi kook ay soxnaam ak suñu kilifa ñu ñëpp muy Aline Badara Ngom di ñaan jàmm Sénégal yàlla na ko fi yàlla def hélas di la kontaane di wax ne daal ñëw leen fii la Equivox dama leen waxoon rek di ngeen fi gis yeneen ak yeneen yoo xam ne nii buñ ca yeggee di ngeen xam ne lépp dëgg la mais di groupe bi yépp ñoom Abou Ndour gis naa leen fii ki nga xam ne nii moom mooy Mame Less Khadim Anta ak ñeneen ak ñeneen nañ ànd rek bokk nday bokk bàyyi liggéey Sénégal jëm kanam